Donc Thiès est un carrefour de résistance. Je crois que Macky la a commis même dafa def erreur. Mhm. parce que Thiès li mu représenté infrastructure yi nga xam ne moom la ñu def fële ca Diamniadio mënoon nañ ko def Thiès fii bu boobaa dana nekk beneen deuxième ville à côté de Dakar buy rivaliser ak Thiès mais erreur bu rëy la te incha allah bu ñu jëlee pouvoir danañ ko rectifier lu tax ma